te bu ko boroom réew mi yégee nag dinañu ko neexal ngir rawale leen wattukat ya nag fab xaalis ba def lañu leen santoon te nettali boobu siiw na ci yawut yi ba bésu tey noonu fukki taalibe ya ak benn dem ci biir galile te tund wa leen yeesu digaloon bi ñu gisee yéesu ñu màggal ko waaye ñenn ñi am xel ñaar yeesu jege si ne leen